jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllum alam bi ak li koy saytu di maam Thierno Dieng di ministre de l' environnement moom nag ñëwoon na ci dëkk bu sell bi di Touba comme ni ko yeneen jëwriñ yi fi nekkoon daan ko defee. lu ñu indi tey nag lu nu war la ñun lu nu bàkku ci def lu nu war du ñu fi remercier nit parce qu'il a fait son devoir lu ñu def c'est un devoir républicain et ensuite un devoir di war wari fu taalibeem rit ñaar laa fi ñëwee ñëwee naa ci turu ministre ñëwee naa ci taalibe Sëñ Tuubaa moom mi le nag indil toll ci matériel bu takkoo takku jëmale ko ci ketug dëkk bi ak ni ñu koy saytoo ay peel ay brouette ay poubelles yoo xamante ni des na ko mën a teg ci yenn ci gox-goxaan yi ngir ñu di fa ramasser mbalit di ko fa dugal moom maam Thierno Dieng nag nangut a fësal benn yoon xayma bi nga xamante ni indi na ko waaye lu dul rek di fësal ne yéeneem ëpp na lii ci dëkk bu sell bi ci Touba. li ma fi indi dama gaaw indi ko ndax Touba loo fi indi boo gaawul a ñëw ñu indi fi lu ëpp wala ñu indi lu fàtt ndax ngay ni loolu tax ma gaaw ñëw te li may indi itam war naa gaaw a ñëw ndax dëkk bi dañoo bëgg mu mel na mu mën a mel ba mën a teeru gan ñi te la ca war a jiitu mooy set donc lu ñuy set setale moo fi war a njëkk moo tax du gaawatu ñëw loolu daal leen indi woon lim bi moom jërul ma koy wax filmer leen rek li ngeen gis bu ngeen gisee rek bu nii bu ñu xamee dañ xam yokku na yokku nañ unité bi indi nañ lu ndaawul indi ndax camion bi nga gis li ci nekk wax naa ko léegi ñetti téeméeri sart la juróomi téeméeri ay paan yu ñuy raxasoo juróomi téeméer lu nekk lépp loo xam si rek ci wàllu set la dara la mas a ñëw te moom mii moo ko fi indi te li mu bëgg a wane mooy li mu fi indi li ko fi jëlee mooy place yi muy for di ko defaraat waaw loolu aussi lu kii te ñoo ngi ñaan suñu borom ba bu dee dellusiwee mu mayaat nu jëf jumtukaay yu tax nu mën a yokk li mu defee woon li wax ji daal liñ ci yéene lépp mun nu ko wax waaye filmer leen li ngeen gis rek wan ko nit ñu xam nu mu demee. jërëjëf ci visitub jëwriñ jile sax ànd na ak kuréel gu bees goo xamante ne nii dañuy saytu li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum plastique bi ab fàttali nag matériel bi ñëw na ci waxtoom ndax dafa fekk benn fan ci weerub safar mbooleem dëkk bi sell bi di Touba rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di Baay Faal yi ñu génn ngir amal li nga xamante ne nii moom moo di cetug dëkk bi boobule matériel nag mi ngi ko jébbal Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif mi nga xamante ne nii moom la Serigne bi gàll lépp lu jëm ci saytu mbalit mi ci dëkk bi ak li nga xam ne moom moo di setal ci dale ci benn fan ci weerub safar ba keroog dëkk bi di set wecc ginnaaw bi mu jëlee mat xeel bi moom sëriñ Abdou Latif Mbacke nag ci jëwriñ ji nag ànd na ak délégation bi mu àndal jëm ca xalif général des mourides ngir sàkku ci moom ñaan